aousubillahi min aseytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ina ibaadi laysa laka alayhim sultaan walaaw yaxsimuka min anaas ya allah barke borom tubaa eh, bokki jullit yi eh, bokki umul islaam ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg tànd ak wér eh, di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew yëpp Euh, teg ci sëñ Afia Bousso imaam mi nga xam ne mooy kilifa ak daayira bi tey jii nag bu gisee suñu jotaay bi ñoo ngi fii ci jumaay Touba euh, ci teewaayu sëriñ Jili Bousso ak sëriñ Mbacke euh, sëriñ Jili nag teewal fi sëriñ Afia Bousso al imaam ñu ngi ànd ak daayira bi nga xam ne mooy waa daayira Muxaddamatul Xidma Touba Italie ñu yor liggéey bi nga xam ne dañ ko daan liggéey bu màggal Touba excès muy li jëm ci wàccaayu màggal gi. Eh, loolu teg lañ indi nag tey jii doon ko jëbbal si daayira bi eh, ñu ngi feggoog sëñ Daaru Touré mi nga xam ne coordonnateur général Muxaddamatul Xidma Touba Italie ci njiitul sëñ Ibrahima Ndiaye Touba Milan mi nga xam ne mooy jawriñu daayira bi ci itali eh, ànd ak tam sëñ Ibrahima Sey moom tam bàyyi ko ba Pisa ci côté Toscana ak sëñ Pape Niang Euh, ñu ñëw fi nag indi fi liggéey boo xam ne euh, dañuy wax rek alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf sëñ Tuubaa ndax euh, buñ xoolee lañ fi indi woon daaw damay wax ne ren ji loolu benn daayira moo ko indi loolu nag mooy ak yokk kon yàlla na ñëpp yokk te it liñ ci yéen rek sëriñ bi gën ñu ci defal am gàttandu xam naa kàddu yi dañ koy gàttal su ko defee ñu jox sëñ Daaru Touré mi nga xam ne moo doon coordonnateur bi Euh, ñu jébbal sëriñ Jili Buso mi nga xam ne tey moo fi teew ci teewaayu sëriñ Afi Buso imaam sëñ jiili nag euh, moom ñu bari xam nañ ko ndax MKTV bi nga xam ne mooy télévision jumaa ji euh, ci wàllu communication bi moom moo ko moo ko moo moo ko jiite di ci liggéey liggéey bu sel ba xam naa diaspora moom min nañ ko kon sëñ Daaru xam naa dañ lay jébbal kàddu yi rek ne ba kàddu yi mujj auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu moo xadimul xidma Touba Italie Touba diaspora ñu ngi ziar ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu njiit bi si Assane ndax la ma daan wax rek at mu nekk moom lay wax lépp moom la ndax euh, ñett at ci ginnaaw ñeent bi ñu gisee vidéo bi jàll ci sëñ Saliou si defoon benn programme dugal ci daayira bi. lañ ko daal di woo mu dugal ñu si ba tey jii ñu ànd ko moom di liggéey di sant ñëpp nag ndax euh, laaj yombul te ni ko si Assane Diop di waxee tamit daa am solo laaj lu ñu mën def fu ñu xam ba tax na yaakaar naa moom li ñu ñuy jox mi ngi nii lu ñu xam la wax dëgg yàlla laaj nañ ko ñu koy jébbal suñ jëli bisimilah suñ jëli waaw euh, lépp lépp tollu ci lim mille huit cent dix euros mille huit cent di euros waa Touba Pizza ñoo fi joxe mille euros yi ñu leen sant di gërëm. waa Touba Milan yi ñoo fi joxe 300 euros yi waa Touba Cagliari yi ñoo fi joxe 350 euros yi waa Touba Livorno ñoo fi joxe 160 euros yi bu ñu ko boolee mu nekk di euros xëy na am na sax ñu ko bëggoon mais xëy na xat-xat yi ak jamono xëy na mooy tënk ba ak yow seen yéene di ñaan su borom bi subhanahu wa taala balaa déwén na lu ci waay yéene ba ko liggéey Sëñ Touba yéen ko àggale ba lim bii déwén nekk ñett ba ñeent ba juróom loolu ñaan Sëñ Touba di gërëm ñëpp nag di gërëm ñëpp di soñ ñëpp rek ndax li ko si Assane di waxee rek yaakaar na ni moom lu nekk mën naa umpale ngaan fu mu jëm ak fu mu jëmul ba mu des liggéey sëñ Tuubaa ci jumaa ji ndax loo xamante ni moom mbokk indi ci jumaa ji sëñ Tuubaa ji la koy def yaakaar naa ne moom war naa bañ ñu ump kenn maa ngi soñ ñëpp nag di gërëm ñëpp di gërëm suñu njiit sëñ Ibrahima Ndiaye ndax moom tamit ndeysaan sonn na ci lool di sant ñëpp daal di jox kàddu gi sëñ Ibrahima Sëy mi nga xam te ne moo féetee côté Toscana Moussa na ci ay kàddu jërë ngeen jëf sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima jërëjëf. bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah waa daayira mu xadmatu xidma Touba diaspora Italie Touba Italie seen ndongo seen eh, ndongo Ibrahima Seye moo leen di nuyu di jottali nuyu ak siyaaram di ñaanal Seex eh, Muntaxa Mbàkke suñu borom doole ko kattan ak wér yàlla suñu borom guddal fanam di ñaan jiital bi ci nuyu bi bi tam Serigne Afe Jorin ñaan yàlla yàlla suñu borom itam gën ko taxaw di siyaare membre daayira bi yëpp di wax ne que tey moom dañoo ñëwoon ci jumaa ji doon fii indi liggéey bi liggéey wàccaayu màggal gi ànd na fi ak sëñ Assane ak sëriñ Daaru ak sëriñ Pape Niang ñu ñu ñëwoon si jébali liggéey bi man nag samay kàddu moom xam naa du bari ay cant lay doon rek ak soññe waaw di soññe itam waa PISA bi nga xamante ni fa laa bàyyi ko di leen soñ bu baax a baax di leen xamal ne liggéey bi agsi na di ñaan yàlla ñu gën a takkuwaat ba lépp li nga xamante ni moom lañ bëgg ak moom lañ yéene suñu borom mottali ko ci bàkk Seexna Xadim waaw di sant gi itam mënul li may wax Euh, fay gi moom ku tedd gi moom waaye cant gi moom xëy na dinaa am na kàddu yoo xam ne dina ko yëkkati di ci jiital comme sëñ Pape Niang mi itam ñu ngi koy dolli cant ndax taxawaayam rafet na lool ak euh, sëriñ Xaali Diagne ak euh, sëriñ sëriñ Abdoulahat Ndiaye moom itam wax dëgg yàlla macha allah taxawaayam am na solo trop maa ngi leen di jottali cant gi nga xamante ni ci daayira bi la jóge maa ngi leen koy jottali bu baax leen wax ne que liggéey bi moom nii rek la nañu góorgóorlu rek tam li ñu wax rek. liggéey Serigne Touba moom amul tànki kanam amul amul tànki ginnaaw tànki ginnaaw tànki kanam la am waaw loo de lu ñu def ren rek ñaan yàlla bu déwénee ñu def ñu ful ko maa ngi sant ñëpp di jégalu kàddu yi nag xam naa kàddu yi day xaw a jafe lool waaye maa ngi tub bu baax di jégalu soññ bi daal luñ ci man ak nañ ko def di di jottali itam sëñ Ibrahima Ndiaye xam naa incha allah bu soobee yàlla bu luy jàllee itam faaw communication mënul ñàkk moom ñu xool daal nu ñu koy jaatale mu gën a yaatu ndax yaatal gi rek moo ci am solo ndax bu yaatoo rek li ñu bëgg lépp dinañ ko am bu yaatoo li ñu bëgg lépp duñ ko am ñuy soññe bu baax a baax a baax di ñaan yàlla liggéey bi suñu borom ful ko ci bàkk Seexna Xaadim màggal gi itam ñaan yàlla dugg si jàmm génn si jàmm ñu ñaan yàlla ñi màggal si ñëpp suñu borom indi leen si jàmm ñu wàññeeku si jàmm bàkk Seexna Xaadim salaamaaleykum wa rahmatullah eh, jërëjëf sëñ Darou Touré eh, ak sëñ Ibrahima Sey ci kàddu yu am solo yi nga xam ne wax ngeen ko tam jëm ci liggéey bi ak soññe bi eh, xam naa dañ leen di jëfal rek ndax euh, itali moom ni ma koy waxee yàlla dogal na moom daayira bi miin na leen ci bépp yitte bu ñëw bu ñu xoolee jëf yi nga xam moo fa mujj bàyyi ko toll na ci ñeent aspirateur yoo xam ne bi ñu indee tàpp yi fii te sëñ bi joxoon ndigal waa Espagne ñu laal tàpp yi bi Cheikh Mamadou Bassir moom sëñ Abdoul Khadir soññee ci euh, ta ci tàpp ci machine yi nga xam mooy war a setal tàpp yi euh, ñoom ñii seen jëf bokk na ca ñeenti aspirateur jënd nañ ko itali mu ñëw loolu tam mu bokk ci jëf yu mag yi nga xam ne jëf ju la ju ràññiku euh, nun nii ngeen soññee nag noonu rek ñun lañuy soññee ñun ñi nga xam ne dañoo bokk lenn ci ndawi daayira bi daayira bi jox ñu seen kàddu ñu ñu koy yëkkati ci bitim réew euh, muy liggéey boo xam ne daal woowaat nañ ci ñëpp ndax fii yiñ fi soxla woon waxoon nañ ko ci euh, bi ñu màggalee daaw ba bis bi dellu si ci kër Sëñ muy lu mel ne SL électrique boobuy jóg ci kaw waxoon nañ ko fi waxoon nañ fi aspirateur yi li ci euh, am na ci lu ci ñëw euh, waxoon nañ fi tamit lu mel ne citerne ndox boo xam ne day man di mm, nekk ci moomeel jumaa ji diggante jumaa ji ak loolu tam bokkoon nañ ci ba léegi tam ñoo ngi ciy dolli ko yaakaar waxoon nañ fi tamit euh, lu aju ci entretien bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy beneen camion boo xam ne camion mbuubit lay doon boobu itam sëñ Fallou Mbacke wax na ma ko barki démb na ma bokk na ci leen woo kon loolu xam na rek laa ci doon dolli di wax ne nag Italie réew mu mag a mag la eh, gis nañ ne liggéey bi tam ña ngi ciy jàpp waaye itam tey rek waxtaan naa ci sëñ Fallou Mbacke moom imam Brescia ne ko soxla nañ daal mboolem daayira sëñ Tuubaa yi ne Italie ñu jàpp ci ndax tey xam naa bu ñu xoolee li fi sëñ sëñ Daaru wax ak ni itali toll yaakaar naa ñeenti daayira ñoo fi ñëw te loolu liggéey bu mag a mag moo fi am fii ci jumaa ji te kenn ku ne xam na ne jumaa yi sëñ Tuubaa ji euh, mooy dalal gan ñi te it liggéey bu mag lañ fi def bu màggal gi jub see gis ngeen ni ñuy ni ñuy taxawoo jumaa ji ci entretien biir ak bitti lépp bu ñu xoolee mbooloo mu takkoo takku loolu dama ci bañ a jiitu sëñ jil dana ci ñëw ñi fi nga xam ñoo fi nekk ak yi nga xam ne yor nañ ko bu ñu xoolee jumtukaay yi nga xam ne mooy yi ñuy soxla ba bi waaj di jóg sax maanaam ni ñuy taxawoo ay ay ventilateur noonu la ñuy tax saxlaa lu jëm ci communication noonu la ñuy soxlaa lu jëm ci ñi nga xam ne ñoo ne ci biir jumaa ji ngir xam ne daayira bee leen yoral seen bopp kon nag jëf ji nga xam ne moom ngeen fi indi moom moom foofu rek la jëm te fii lu fi egsi rek moom dem na ci sëñ Tuubaa sëñ bi gërëm na ko kon xam naa daal ñoo ngi woowaat ñëpp ci liggéey bi ñu xam ne daayira Muxaddamaatul Xidma daal tàllalaat na loxo képp koo xam ne rek dangaa nekk ci bi waaye nag Touba Italie moom rawatina ci woo nañ leen bu wér ci liggéey bi ndax daayira sëñ Touba yi tamit eh, ya fa nekk ñun gis nañ ne bu dee buñ doon wër Pastef ñu leen ëpp Pastef moom moom néewul ci àdduna bi waaw kon nag woo woowaat nañ leen ci liggéey bi ñëw jàpp ci eh, comme ni nga xam ne tam Amérique def na ko ba am fondation Espagne dem ba am association nationale eh, nga xam ne tey jii liggéey bi yaatu na fu waay mën a nekk maanaam sa sa jëf di mën a ñëw Mm, loolu daal nos boobu daal soxla nañ ko ci waa Italie yëpp di jëlaat lépp teg ko ci loxol nag sëñ Ibrahima Ndiaye mi ngi xam mooy jëwriñ ji ak mbooleem jëwriñ ya fa nekk yépp ko defee ñu gàttal kàddu yi bàyyi sëñ Jili Buso mi nga xam ne mooy wax ci kàddug sëñ Afiya bisimilah sëñ Jili auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi ni mbokki taalibe yëpp di ci jiital sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy mooy coordonné euh, Europe gépp mu jaarale ko ci loxo sëñ Daaru Touré ak sëriñ Ibrahima Sey mi nga xam ne moom la àndal ak sëñ sëñ Pape Niang di rafetlu. jéegu yu am solo yi nga xam ne yàgg ngeen ko dox yaakaar naa at mu jot nii ngeen ko baaxoo defee euh, xam ngeen ne jumaa ji mooy dalal mbooleem koo xam ne dafa màggal si euh, am mbooloo moo xam ne tamit ñooy saytu ñooy saytu ñooñu mbooloo moomu nag euh, ay jun junneeg nangam lay doon te te ñooñu dafa am ay taxawaay yoo xam ne euh, dafa war suñu diggante ak ñoom ci ay ay ci ay xéewal ak yi ni jëfandikoo ginnaaw bu entretien beeg ya ci aju yëpp jàllee comme ni nga ko waxee léegi euh, addi yi amoon na lu njëkkoon a jiitu si euh, ngay doog indiwaat mott li bi mott li bi nga xam moo ci desoon Euh, xam ngeen ne mi ngi toll ci lu to mille huit huit cent di euros euh, di addi ju am am solo euh, xam ngeen ne ni ko sëriñ Assane waxe addiye moom doonte ab téeméer la sax tuutut waaye nag bu bu doonte milliard la tamit ëpput xam ngeen ne kon loolu day day nekk lu am am solo <coughs> waaye nag ngeen defe ngeen def ko fi nga xam ne nag sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne ku ci feeñ feeñ ba faw waaye nag ku ci ku ci ku ci ku ci nëbb nag wal xiyaas billah dangay nëbb ba faw yéen nag yàgg ngeen yàgg ngeen cee feeñ rawatina waa Touba Italie bu yàggul rek ngeen ngeen ngeen jàppoon ci wàllu wàllu cet gi ci wàllu aspirateur yi nga xam ne moom la sëriñ Assane Diop doon wax léegi Euh, muy aspirateur yu yu yu yu qualité yu am qualité yoo xam ne euh, amal na njëriñ barab bi lool euh, xam ngeen ne lii moom nekkul seen nekkul seen nekkul seen seen seen seen bis bu njëkk waaye nekkut bu mujj waaye nag yàlla na suñu borom def tawféex ba ni nga xam ne noonu ngeen ko bëggee bëgg taxawe ci ak yaatal ak ak fi ngeen bëgg àgg mu àgg fa lépp yàlla na ko suñ boroom def waaye nag yàlla na leen suñ boroom defal ay xéewal ci ni ko sëriñ Tuubaa waxee ci képp koo xam ne da koy liggéeyal muy wàqdi xawaaji lasina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu kon yàlla suñ boroom faj seeni aajo ci barkeb sëriñ bi yokk seeni xewal def ci barke ba lépp loo xam ne bëgg ngeen ko xidmaal sëriñ bi bëgg ngeen ko liggéeyal sëriñ bi ngeen defe ko ni ngeen ko bëggee te du yàq ci seeni seeni yéen i yeneen i jumtukaay dara euh, yàlla mën na loolu yàlla ko yàlla def ci barke sëriñ bi rawatina weer màggal gi ñu dëgmal euh, defal leen xéewal ak tawféex kàddu yi sant rek lay doon ak ñaan ndax euh, liggéeyub sëriñ bi la ngeen indi ko ci sëriñ bi rek <laughs> wax kon kon kon loolu moom daanaka wax ji jërul muy gudd waa kay waa kay ngeen jëf jërë ngeen jëf la amiin amiin